Forza la bon dafa dugg demal Forza waaw waaw Forza ñëw na waaw waaw waaw ka li problème Forza ngi noonu wàcc na balaa ngay dugg mën nañu la laaj tuuti ah. balaa ngay dugg ñu laaj la tuuti rek boo duggee rek duñu am ah, droit duñu am droit ak c'est pas jël rek champion ñu ngi lay jaar ah, mais naka yi tey tey ngeen ñëw war a jàkkaarloo sa adversaire def open press lan nga ñu ci mën a wax waaw li ñu ci mën a wax mooy que ñu ngi waajal incha allah rabbi li ci mën a wax mooy ñaan ko yegg si bis ba ci kattan si ñoom yàlla suñu maanaam may ñu ndaw mais moom nee na nga perte de perte ci lamb loolu garaaw moo xam la garaaw amul problème noo ko bëgg noo ko nar a bëree bëri wala xeex amul problème man lii war dinaa ko def te xam naa fan laa jëm waaw te du ma ko sàggal uh-huh. fan ngay préparé combat bi Sénégal wala Sénégal ngay toog d' accord lan nga mën a wax sa adversaire yi. li ma ko mën a mën amul ko. ah xay lay de la Forza il est ferme dans ses réponses. wax donc euh, ma ngi noonu di wax ak euh, di wax ak euh, policiers yi ma ngi noonu di wax ak policiers yi ña ngi koy jox ay directives tey daal xorom moom xam naa ne tey xorom tey bëri na ci lamb ji ça c'est mon très cher waaw fort naa ngi nii donc fort daa ngi allah boo na combat bi